rapport toujours à cette information la Bon, c'est confirmé, c'est confirmé ce qu'il dit. Euh, il a eu l'insulte, il y a eu une insulte du coach envers la fille, d'après toutes les informations qu'on a eues, parce qu'après, nous, on n'était pas dans les vestiaires. Donc, euh, il a une information de Wolu, il a recoupé, il recoupé Wat, Bou, Mengo, trois yep.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 d'un scandale aussi grave boo xamante ni un coach a abandonné son équipe en pleine finale. c'est grave c'est c'est c'est c'est extrêmement grave.